assemblée à dimension humaine mhm. boo xam ne liggéey bi qualité bi moo gën quantité bi mhm. voilà loolu c'est des réformes yoo xam ne dañ ko def ici dans ce pays mhm. ensuite pour la sécurité du pays. mais yaa ngi xoos nit ñëw benn par benn nga may ma rek peut-être ñëw ñu terminer fii hmm. parce que. non dañuy def waa ji boobu daal nekk ci allah dinañu ko ko terminer mooy deuxième partie euh, pour daal ci ñëwaat beneen bi booy maître euh, dañ la fi gisoon nga def évaluation par rapport ak des armements yu ne dañ ko jënd brandir un document boobaak léegi peut-être mu am benn rebondissement fan la affaire toll quest se passe non par rapport ak pourquoi peut être moom ay topploo affaire bi ak yu mel noonu de suite dañu gis que maître Boussa dafa ba non la question bi nga war a poser pas ça c'est ça j'étais pas dans une émission en différé j'étais en direct je donne des informations illustrées mhm. prouvées qui doit réagir qui doit rebondir ou bien qui doit il veut dire l' état le procureur de la république. ok xaar ñu convoqué la. Mhm. mais damay xaar pourquoi il ne m'a pas convoqué. pourquoi foofu mooy question bi loolu loolu lay loolu lay non non moom xam ne kan moo mhm. man dama agir kii mooy réagir. Mhm. action réaction. pourquoi ils mais après boobu aussi waxtoo ci ba tey loolu moo ñëw. gis nga euh, mon boobu xam nga man chaque fois rek boo wax jotee noppi si këram. dama lay wax le courage politique la xaw ma yàlla moom ko mën dindil si man. N'oubliez pas le contexte aussi. On sort d'une vingtaine de morts mm -hmm. du 1er au juin. L'émission a eu le 7 juin, comme le 8, mhm. en direct. C'est chaud. Hein? Oui. Quatre mois, ça n'y Moi, je suis sorti, j'étais écœuré parce que c'est ce que j'ai vu. Mhm. Des gens qui ne sont pas des FDS, détenir la violence légitime, nek à jël musóor taf seen kaala nëbb seen kanam mhm. yore des <laughs> armes de guerre mhm. dugg ci ay pick-up yoo xam ni banalisé sans mhm. immatriculation même les autorités de police là sont immatriculées dàq xale yi booy jàdd ñu jàdd bim bim bim dans quel pays nous sommes ñi ko ragal wax man bokkuma je l'ai dit. ils ont parlé de force occulte. ma ni force occulte boo xam ne mënoo ko téye mu jaar sa kanam nga jox ko fetal na ko ba continuer le boulot. wala gisoo image ils ont parlé ils ont tu as vu ou tu n'as pas vu journaliste yow. oui j'ai vu bàyyil il bi je. j'ai vu j'ai vu <laughs> la dara ku la fi woo ku la fi laal <laughs> je suis avocat <laughs> euh, non loolu moo loolu laa la bëgg a wax ni j'ai pas eu j'ai pas peur de dire ce que je pense. ce pays là man duma ko jiite si ay dans ces conditions là. ok jamais les armes c'est pour les forces de défense et de sécurité. Mmh. quand commande des armes c'est le ministère de la défense qui le prend. Okay. quand le président de la république prend fonction ñii ko doon garde ba mu nekkee euh, candidat. Mhm. am na ñu yore woon ay jaasi xam nga fu may wax. te mhm. kalo marron ak yooyu bés boobu ñu ne yow la. di ñuy dàq Kalomarion yëpp et la sécurité la relève est assurée par le GIGN. Mhm. le GIGN arrive avec des armes achetées par la présidence ou arrive avec des armes de la du ministère la défense. Mhm. mais yow tey nga dem jënd arme indi nu mu ñëwee nu mu duggee nu mu toogee ñun ko jox yëpp man j'ai les preuves moo tax ñu ne bu ñu ko woo ne remuez pas excusez-moi du terme la merde. Mhm. ne remuez pas ça parce que le gars il a les preuves de l'origine de ces armes et leur ñoom. lu mel noonu bu amee ñoo war a génn xamal Sénégalais yi kenn ci budget bi jënd nañ nangam ak nangam. Ah, bien sûr je pense que mhm. kenn du ci wax. kenn du ci wax la moo tax la sànq. Mhm. en introduction xaw ma sa daañu wax ci lii. mais dama la ne. est-ce que mës nga ma wax ma wax dara gën a ñëw di ma weddi. parce que boobaa léegi jotuma jotuma nga ci mhm. pays. jàmm rek fii hmm. l'équilibre du pays mérite tous les compromis waxuma compromission tous les compromis pour jàmm am ci réew mi hmm. parce que amatuñu gerte caaf amatuñu phosphate rek amatuñu xawma lan la lan rek on a du pétrole du gaz et hmm. d'autres choses ce pays a besoin de calme et de waxtaan bi jubóo et il faut quelqu'un qui sache réconcilier tout le monde yow xam nga ne man dem naa fi dem naa fi je suis très bien placé pour waxtaan ak ñëpp <laughs> non dëgg dëgg neexul est ce que maître est ce que maître boobu noonu donte ñun ñëpp loolu la ñu ñaan mais ak contexte bi mu toll nax dina yomb dina yomb dina yomb parce que ñii waroon nekk bloc pour imposer seen force parce que mhm. Sénégal bu ma Sénégal Afrique en politique bu nguur toogee pour dindi ko c'est difficile mhm. surtout très difficile mhm. budget 2023 bi 43 pour cent c'est du social da ngay toog rek nga ni tig tig tig recevoir nga quatre vingt mille francs <laughs> te dina la koy jox moment boo xam ne vote mi ngi jege attention. Hmm. ak suñu la xiifalee ba pare. Hmm. leneen ngay tal da ngay ñëw dugg ci ay quartier di waxtaan ay programme yu am solo pour l' avenir sa ce Sénégal nga gis ko am soccam toog fële boo génnee ñu ne ko lan la indi ñu ne ko wax ju bëri rek puusal te li nga wax. c'est des <laughs> choses importantes pour arrêter ce qui s'est passé depuis 1960 keneen ñëw indi saakoom. ñun nga ordonnance yaa ngi nii mu commencé arrosé dem yoon du fa sax wax programme ok ñun nga ñun de lii la ñu bëgg a dégg. Mhm. et ça malheureusement. Mhm. ça reste encore mais y a du boulot. ok maître euh, maa ngi koy wax tout à l'heure vous êtes candidat à la candidature aux élections présidentielles euh, amuloo jafe-jafe ci wàllum parrainage bi et puis on n'a pas senti nga wàcc ci mbedd mi dem wuti wàllum parrainage récemment gis nañ ko mel ni Abdourahmane Diouf muy jooy ci wàllum parrainage yi Pape Djibril Fall également idem jooy nga wax de waaw parce que nee na gisul parrainage yi jooytu quoi jooytu muy jooytu quoi parce que gisul parrainage yi xaw na compliqué yow aussi quelque part maître est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que c'est le même cas wala da nga am parrainage ba pare <laughs> lan mooy sa lan mooy sa lan. Bamba alaaji Mor. Ah. déggu leen ma daal mooy jooy déggu leen mooy jooytu. oui kon ça veut dire que lépp gongo am nga pare na yow. maa ngi sant yàlla te pare gu ma parce que il nous reste encore un mois et presque oui. un jour. ça sera le 11 décembre mooy. Ah oui donc nekk guñ sax novembre. ok donc euh, yaf yi mi ngi suñu kanam. mais sa se passe bien te bougé gu ma comme tu le dis sama bougé mi ngi commencé premier octobre bi je commencerai par le Matam Kanel. et je descendrai par le département de Podor, j'irai par le, le, département de Dagana, mhm. j'irai par le département aussi de Saint-Louis. su ma paree Saint-Louis foofu damay ñëw Dakar deux jours. Mhm. continué waat aussi à Thiès euh, dans toute la zone de la région de Thiès Mbour ak yooyu yëpp. Mhm. après je descendrai vers le sud. pour dem wax ak ñëpp. mais déjà di remercier sénégalais yi bu baax a baax a baax vraiment du fond du cœur parce que parrainage ñu ne prip bougé wu ma am na zone yoo mosuma fa ma bind sama page Facebook parmi les conditions il faut que nga ñu am ñu jóg nga ni bëgg nañu nga ne candidat loolu mooy parrainage voté luñu la daañu la voté kooku beneen affaire la mais bëgg nañu daal par rapport ak tes idées ak sa taxawaay si réew mi. Mhm. nga bokk si jongante ba ñu xool marché bi ndax dana neex du neex. Mhm. dama ko bind sama page Facebook les cartes d'identité sont tombées en masse yow de yow la ñuy voté yow la ñuy parrainel ça arrive en masse. ba ma fi jógee léegi fii. Hmm. maa ngi jëm directement ci permanence bi. li ma lay wax lay wax mon cher. Euh, Bamba. doublon yi dina xaw a. nga ni. <laughs> doublon yi dina bëri débattre. Euh, doublon yi loolu beneen débat la du débat ndax am nga parrainage wala amoo parrainage doublon kii nu mu tudd encore euh, coow li mooy. Mm-hmm. est-ce que ça avance bien au niveau du parrainage ce qu'exige la loi loi loolu la wax mm. dafa ne carrément euh, li nga gis nii lan la. waaw ah, ay carte d'identité de. ay ah. carte ay carte d'identité de ñu photo envoyé la. du jeex du des du jeex. Hmm. on me l'envoie en disant yow la na parrainé. ku nekk ku ma yónnee xam naa ko yónnee. naa la hmm. yónnee sama fiche parce que zone bu nekk naa fa yónnee des équipes. ñu dugg par exemple à Sédhiou wala Bunkiling. Euh, Karafa hmm. Diaroume à Diamacour Diakuta à Diama Lathie yëpp daañu ñëw. ñu signal leen parce que ñoom ñoo ma yónnee seen carte d'identité ko yow la ñuy parrainé. mosuñu la gis mais gis nañ sa jikko gis nañ sa liggéey donc ñun 2024 il faut voir le meilleur profil. koo xam ne boo ko joxee dana tëdd na nelaw il sera un homme aussi d' autorité autoritaire war a jël décision ñu jël ko bu ñu waree respecter aussi ak yelleef yi ñi di def ko tey bésu manifestation la oui et depuis un certain temps les manifestations sont interdites mm-hmm. Moussa président je vous garantis qu'on ne dépassera pas 3 pour cent d' interdiction de manifestation 3 pour cent du ma ko dépassé dana am yoo xam ne dinañ naan lii boo ko bëggee def du fi mën nekk mais dama ne du ma ko dépasser. xamul la hmm. la liberté sera le principe. mais est-ce que loolu. waaye su ma la encercler. Hmm. wax ma la encercler su ma ko couvrir sa manifestation. Hmm. di nga xam ne di nga dem place de l'Obélisque wax lu la neex ñibbiwaat sa kër li nga fa gis doo saaga kenn doo wax lu ñaaw. déggoo ma de voilà. <laughs> maître ah, léegi léegi man loolu la ñu ñaan ci réew mi. non dégg mbaa ma dégg na ma. <laughs> non mais est ce que noonu. bu baax nga xam ne. Ah. Euh, mën naa ne benn avant 2012 euh, njiitu réew mi loolu la doon incarné un état sombre et vertueux gis nañ fi daanu est ce que aussi pour yow doon tani souhaité wu ñu la ko mais mënuñu xaar que ni lépp possible na en politique. oui dans élection bi c' est très ouvert moom laa wax tout est possible effectivement parce que gars yi ñu ngi xeex seen biir. loolu moo tax man la day facilité mu nga